di gërëm ñëpp dañu fi ñëw ci ndigalu monsieur le président de la république bi nga xam ne mi ngi wër donc euh, Sénégal seeti kilifa diine yi saafonteeg ñoom ci waajaayu gàmm bi euh, lii yàgg nañu aussi di ko def donc euh, mët na léegi yaakaar naa lu ëpp juróomi at dañuy ñëw donc ci ndigalu président saafonte ak chef religieux yi nekk Thiès donc waxtaan ak ñoom Euh, taataan si ay ñaan non seulement pour Sénégal pour président de la République pour jàmm am fii euh, yaakaar naa loolu moo mooy li am solo euh, tey léegi loolu aussi yaakaar naa yoon la ñun ñi nga xam ni ñoo fi nekkal monsieur le président de la République ñu mën a ànd ñun ñëpp donc ñëw def liggéey bi nga xam ni moom moo ko doon def mais jote jotam matewu ko donc loolu mooy. donc suñu tànk yi te gis nañu ni euh, chef religieux yi donc am nañu ci mbégte donc ñu ngi ñuy gërëm ci loolu di ñu sant président jox na leen aussi ay soutien. li xew gàmm fu ngeen ci toll. Euh, li xew gàmm yi euh, ñëpp xam nañu ko fi mu ne nii donc situation bi ñëpp xam nañu ko ñu ngi lépp lu ci mën a nekk rek ci jour yi ñëw dina leen ko wax incha allah. Il nous a instruit donc euh, de passer voir ses chefs religieux pour apporter son soutien, pour euh, quérir des prières donc, euh, pour euh, le pays, mais pour lui aussi. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous faisons le tour des chefs religieux et échanger avec eux, et implorer, comme je vous ai dit, leurs prières

et les développements qui suivront vous parviendront à temps opportun. Merci. Donc, euh,